Badiane jërëjëf grâce Serigne à vie doonoo daw doonoo ragal auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmani rahim asalaatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Mouhamadul Bachir maa ngi lay sant bu baax uh, sant njabootu Serigne Touba gi uh, sant njabootu Seydi sant njabootu kër Maulana Ibrahima ñas sant njabootu cekkeen yi waa ba ndax dégg naa ñépp a ngi fi di sant bu baax kilifa yi fi teew te duma mën a jot di tudd seeni tur bis bi nag ñu ngi ciy sant yàlla ndax fekke woon nañu ko daaw fekke waat ko ren bisu diine la te ñu taamoo di ko defee fii ci ndakaaru Mouhamadul Bachir jàpp ni liggéey bi yépp bu nappee ndakaaru la koy tëje ndax liggéey bi bu ñu dégloo comité scientifique bi ak comité d'organisation bi li ñu wàcce ci ay kaamil ci réew mi ñëw war a jàng xatmu bu fii ci ndakaaru kon lii waa ndakaaru la ko defal kon Mouhamadul Bachir ñu ngi lay sant di la gërëm di la yóbbante nuyoo ci Cheikh Mountakha Mbacké ndax bu la joxul woon ndigalal def ko fii doo ko fi defe waaye bis bi bisu ñaan la te ñaan mooy gànnaayu jullit te ndakaaru soxla na ñaan réew mi soxla na ñaan kon ñi nga xam ne ñoo fàggu alxuraan je xasida yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ci wax ñaar nag mooy Bachirou di la sant ci sama xaritoog yow sama rakk nga ngay gor subaax am jom nu liggéey as gor nag su melee noonu bokk ci këru diine sagal na ay bokkam ma waxaat ak réew mi nag ci ñaari baat nañu fàggu wax ju baax ak jëf ju rafet li xew rafetul baaxul jekkul te ku fi toog li may wax xam nga ko wax ju ñaaw ji sonal nañu réew mi xas kilifa diine kas kilifa aada saaga leen te dara du ci mujj loolu ëpp naa def cim réew te loola nag képp koo xam ni yaa ngi ànd ak moom na nga xam ni doo am jàmm fii ak àllaaxira nanu bàyyi xel ni kenn réew mi mooy kenn diine yi nañ leen fonk te jàpp leen te sàkku ci ñoom ñaan te bañ na defi nawle réewande amul mucc xaste amul mucc mbon amul mucc fudul safara te réew mi nag seetaan gi bari na lool koo wax mu ni sama yoon nekku ci koo wax mu ni sama yoon nekku ci koo wax mu ni sama yoon nekku ci ñu jëm nag ci mbir mu doy waar ci fan yi ci kanam ñuy wax élection ku ne am nga droit tànn kala neex moom ak moom nungus na ko waaye woote dem hôpital am na lu ko gën woote dem kaso am na lu ko gën woote di tojante bopp am na lu ko gën ñàkk fayda nag mun ta weesu yor saw kat ñu soxla ko nga sàggan ba dee ca loolu baa nga gaañu ca baa nga am ca laago ndax nit koo xam ni gisu te xamoo ko ëpp naa def